Livina, Duck Livina. asalaamaaleykum euh, euh, man la docteur Matidouf, euh, médecin chef district sanitaire Dakar Sud. damay ñëwaat aussi ci Covid bi parce que Covid bi defe naa au début nit ñi dañoo daw ci woon ñëpp di vacciné parce que feebar bi ñëpp xamoon nañ ni ampleur bi mu jëloon mais ba ñu tegee vaccin yi indi disponibiliser ko ci fi nga xamné moy euh district yi parce que district point niveau opérationnel. poste de santé ñu disponibiliser ko bu gën a waat askan bi ci début bi gisoon nañ ni vraiment nit ñëpp ñëw nañ vacciné wu ba nga gis ne commencé na wàññeeku bu baax a baax parce que nit ñi boo leen bu ñu leen vacciné dañoo commencé waat développé yokk seen soldat ba nga xam ne bu ñu immunisé wu du ñu mën a amati euh, duñu dañuy prévenir ci forme grave Covid léegi nag dañoo constaté ne euh, wàññeeku na bu baax a baax maanaam vaccination anti Covid ko na baax a baax ñuy ñaan askan bi febar bi mi ngi fi ba léegi nañu gëna ñëwaat encore gëna a doolaat waat encore yaram pour que euh, covid bi bañ leen attaquer parce que ñun ñi nga xamni ño nekk ci centre de santé ñi nga xamni ño nekk structure sanitaire yi gis nañ ni chaque jour dañuy am ay cas covid donc ñu ngi ñaan ak euh, ministère de la santé recommandation yi mu def yépp ba ci xalé yi nga xamné am nañ fukki at ak ñaar parce que jot nañ këyit yi ñi ngi jema def suñu kemt lay kàttan di len informer di len ñaan aussi ñaaxat aussi na len ñew len encore ku jëloon sa ben nga ñëwaat waat encore parce que ñew nañ def nañ ba 3e ba 3e dose di rappel donc dañuy ñaan rek ñepp ki nga képp ki nga xamné égalé wul ñakam ci covid bi na delu ci waat ñew égalé waat ñakam parce que loolu mo ñuy dolel loolu mo leni aar mais loolu aussi moy tax ni yalla musal ñu ci febar bi donc di ñaaxaat ñëpp rek di sante ñëpp di len gëreum mais aussi fuñu tollu dal ñi ngi nekk di wéccu di len aussi di len yobante parce que aussi ñun suñu waru gar moy ñuy tok di len jox ay euh, wax yu leer wax yo xamne aussi yeen so len ko déggee di ngeen mëna ñëw directement ñëw si biir structure sanitaire yi ñu defal leen li ngeen bëgg donc maa ngi ñaan ñëpp dañu ñëw ñu ñàkk a war ñu ñàkku parce que Covid bi mi ngi fi ba léegi dañu ñëw dolliwaat seen dose parce que vaccin yaa ngi fi c'est disponible lépp lu ñu bëgg ñu dellu si waat ñu defal leen ko yàlla musal ñu ci feebaru Covid.